société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yér yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar nan ñu élection législative yi ba léegi njaw ma ngi wéy di desu xambin ni ki démb député Pape Djibril Fall moo janoo ak katas ko du xabaar yi waaye wax na lu leer nee bokkul ci Benno Bokk Yaakaar waaye tamit bokkul ci Yewwi ak Wallu moom député la boo xam ne maanaam wàllum rapport de force bi nga xam ne opposition bi fas yéene nañu ko def ak waa Benno Bokk Yaakaar Pape Djibril Fall dàqul rapport de force bi waaye tamit demul ànd ak ñi nga xam ne ñuy imposer rapport de force ba tey ci biir journal bi Pape Djibril Fall nee na système bi jamono jii ci Sénégal dañu ko war a sopparñe yéene kaay gi di critique nee na bu ngeen bëggee dégg dëgg Pape Djibril Fall moo lenn loo xam ne maanaam lu leer la moom Pape Djibril Fall nee na wax na lu leer ndax nee na ci assemblée nationale nekk lu fa ma sàmba nekk lu fa ma demba yéene kaay gi di enquête Pape Djibril Fall nee na boo xam ne xas sela ak saaga ak soso moom loolee jàppiwu ko politique te doxewul noonu lu jëm ci wàllum calcul politique ak lu soxla ay privilège nee na du loolee moo ko intéressé lu jëm ci wàllum napp géeg ni nga xam ne moom lañ ko yàq ndëngte yi nga xam ne moo ci nekk nee na loolee war nañu ko lijjanti waaye tamit wax na ndëngte yi nga xam ne moo am ci lu jëm ci wàllum suuf si ak mbay mi ni nga xam ne moom lañ ko war a sàmmee loolu lépp moom Pape Djibril Fall démb wax na ci wax na tamit ci lu jëm ci opital Dantec bi nga xam ne dañu ko war a tëj moom scandale la ko jàppee giraawaale ak njombe yéen kaay gi di leen fa ñu xëy fekk fa beneen député bu yees di Guy Marius Sagna moom nee na bu ko kenn woowee honorable nañu koy woowee surga wala ñu koy woowee mbindaana moom Guy Marius Sagna nee na nag hôpital Dantec bi nga xam ne tëj nañu ko samedi ji nga xam ne moom la ñu dëgmale danañu amal ab mars Guy Marius Sagna démb janoon ak taskatu xabaar yi nee na askanu Sénégal ngeen am xel mu dal ci assemblée nationale lépp loo xam ne mën na ko dina ko fa taxawal askan wi yi ne moo fi Sall nag bëgg-bëggam ci assemblée nationale mën na koo sàkku am ko nu ko neexee ndax ñenn ci opposition bi mën nañu koo voté la ndax bu dee vote secret waaye tamit safaan wa mën naa am mën naa sàkku dara loolee bañ a ndax am na ñoo xam ne mën nañoo nekk ci majorité bi bañ koo voté la gañ bi perte la yéene gi di mi ko di jee nee na bi waxtaan ba déggoo maanaam munu see ñàkk journal bi de la Tribune nee na Macky Sall bu ñu waxantee dëgg dafa am Aminata Mbengue Ndiaye ak Aliou Ndoye waaye tamit ñi nga xam ne ñooy waa parti Rewmi nee ma ñoom Idrissa Seck ak AFP nee ma Moustapha Niass ak Serigne Mansour Sy Djamila journal bi nee na ñii ay lëngoy Macky Sall lañu waaye nag bu ñu waxante dëgg amuluñu ko njariñ yéen kaay gi di enquête xëy duñu ñu naan ñu Macky Sall samedi ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la woonam mbooleem député yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar ca pale ba fas yéene waxtaan ak ñoom yéen bi nga xam ne ñooy waa PDS ñoom nag nee nañu ñi nga xam ne jamono ji ñooy ruube bëgg a tas intercoalition yeewi wàllu nañu ko tay te ñooñee waruñu leen a tàll Abdoulaye Wade mooy wax journal bi nee na ñi nga xam na ñuy waa PDS jamono ji nag yëlbunuñu Abdoulaye Wade ci communiqué nee na mooy première force de l'opposition parlementaire Abdoulaye Wade nee na ñi nga xam ne ñuy waa intercoalition wàllu na nañu concentré wo ci li nga xam ne mooy l'essentiel yéen a kaay gi de la témoin nee na inspecteur des impôts ak contrôleur yi nar nañoo jàmmarloo ak Mame Boye Diao mi nga xam ne mooy directeur général des domaines ndax nag Mame Boye Diao dafa xàppati woon lu toll ci ñeenti hectares daal di koy may mooy kuréel gi nga xam ne moo ëmb liggéeykat yi nekk impôt ak domaine ñeenti hectares yooyee ñooñee defoon seen yaakaar mam buy jaaw daf ko mujjee nangoo loole nag surnal bi nee na mën naa jur coow lu ye yéen kaay gi délibération nee na coow am na ñi nga xam na ñooy waa senele jamono ji ñoo ngi ci ay jafe-jafe yu métti métti ndax lu jege ñaari téeméeri milliards moom la Senelec amee ni bor ndax senele amel na banque lu toll ci cent milliards waaye tamit amel na ñi nga xam ne ñooy producteur yi lu jege cent milliards journal bi nee na nag ñi xam ne ñooy producteur ñi nga xam ne nag ñooy jox Senelec lu jëm ci wàllum lu tax mu mën a togg li nga xam ne mooy courant bi ñoom nag nee nañu li nga xam ne Senelec ameel na leen ko cib xaalisa bu leen ko fayul danañu banque seen loxo te bu boobaa maanaam caaf dina xëm làmbaay ñaawa ñi nga xam ne tamit ñooy waa Senelec ñoom mënatuñoo le banque ndax dañoo ameel banque xaalis bu bare bari waaye tamit am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo ameel Senelec xaalis moo tax sax Senelec nekk ci jafe ndax ñi nga xam ne ñooy waa AIBD ak waa SUMA ak structure étatique yu bare bari ameel nañu Senelec xaalis l'observateur nee na ñi nga xam ne ñuy waa train express régional amel nañu Senelec xaalis ñi nga xam ne ñuy waa Sen'Eau ñoom tamit amel nañu Senelec xaalis ñi nga xam ne ñuy waa AIBD ñoom tamit amel nañu Senelec xaalis université yi amel nañu Senelec xaalis ñi nga xam ne ñuy waa ONAS amel nañu Senelec xaalis ñii nga xamante ni nag ñoo a fay Senelec na Senelec daal leen di mise en demeure maanaam dànkaafu na leen na leen su ngeen fayul dalu ñu leen coupé yéen a kaay gi di réew mi lu yoo ñoo ngi woon ci morgue bi altine ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la la ñu leen di jébbal seen borom yéene kaay gi délibération nee na lu jëm ci wàllum tëjug hôpital Aristide Le Dantec loolee du yëfu bu ñu sukkandikoo ci professeur Moustapha Ndiaye mi nga xam ne médecin neurologie la ci hôpital Fann nee na tëj gi amul benn njariñ amul benn sens yéene kaay gi di enquête nee na ñi nga xam ne ñuy waa Mali ñoom nag dañoo tuumal France lu jëm ci wàllum lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñooy terroriste loolee nag tax na Mali kalaame France ca diwaanu conseil de sécurité de l'ONU ndax waa Mali